jërëjëf waa Louga jërëjëf waa Louga ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di jaajëfal waaye ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ndax euh, suñu yéene mooy woon ñu teel fi yegg si parce que Louga dafa am symboliquement lu muy représenté ci suñu combat

di nuyu suñu mag ñi nga xamné ne nañ seen yité ñew féké jotay bi ak heure biñ ko def di féliciter di remercier jeunesse bi parce que ñëpp xam ngeen place bi nga xamné jeunesse bi am nañ ko ci suñu liggéey yéen ñëpp xam ngeen ni dañoo jokkonteel dañoo jàkkoonteel ak système bu doy waar système boobu nag li koy caractériser bëri na dinaa ci dellu ci ci yenn yi waaye bokk na ci li koy caractériser mooy li tubaab di wax lâcheté mooy mii kër lii am léegi rek instant instant incident bu ndaw bi wane na ko moy ay nit lañ yo xamné ne balaa ñuy mun a ñu lay mëna ñëmé rek nga woné gannaaw li tubaab di wax li tubaab di wax poignardé dans le dos mom rek lañu ñëmé suma ko waxé rek dang koy duggal au sens figuré comme au sens propre ndax tok fekk ay yaaram yu dajale seen daje di waxtaan wuñu ngaay wuñu nga dem laqatu ci lendeum ba di force xet di sanni loolu lâcheté mënu ko wess lâcheté mënul wess nga bàyyi ba 2h du matin dali dem def irruption ci siège jambour fek fekk fa ñaari xal rek ñu fay ak benn agent de sécurité nga nous fa fukki waxambaane ñu yor seeni jaas di le siège ba loolu ci lâcheté les bok. lâcheté mënul wees nga dem ba liñ la muy république ndax dara gënul mandargal république nos forces de défense et de sécurité nga dilen leen joueloo des missions politiciennes nan len dem len keur jambour di réclamer ay fiches de parrainage lolu lâcheté la lâcheté mënul wess li xew barki demb ndar bet ay militants ñu nek en infériorité numérique nga yónni say mbeur ñu dem di len door di len gaañ wala di len attaquer ak ay jaasi

sénégalais yi xamul dañ naan moom de dafa yaru dafa noppi waaye bu ñu jaawale yaru bu ñu jaawale yaru ak tubaab bi wax sournois xaw ci olof mortala waaw xanaa mii kër la ndax yow mën ngaa bañ a saaga waaye bis bu ne nga yebal nit moo xam politicien la moo xam journalist la moo xam lu mutti doon nga ne ko demal saagal ma loolu dafa boole mii kër ak lâcheté ndax nit looy def da koy ñeme assumer ko mais yónni say nit ñu nekk suba ba ngoon jot di saaga nit ñi boo génnee di jaay yaru yarulu loolu dafa boole mii kër ak lâcheté ñu ne nekk ñoom su ñu amoon tuuti xel dinañ xam ni seen méthode yooyu nga xam ne dafa boole violence verbale ak violence physique mënul marché ci ñun Macky bu toogoon xoolaat boppam xool fi ñu jaar ak moom juróom at yi weesu dina xam ni su amee ku ko ragal ci àdduna ñun bokkuñu ci fi mu ne nii mu ngi yor moyen yépp fii soo fi xooloon wër na ma renseignement généraux fees na fi del bi ñu xëyee ba léegi dugg Daara Jolof Linguère ak feneen ak feneen fu ñu dem alkaati yam yaa ngi topp wala alkaati Aly Ngouille Ndiaye yi waaye loolu li muy firnde rek mooy ragal suñ koy seet suñuy seet ragal nañ ko seet ci ñoom ñoom ñoo ragal fi mu toll nii waaye mu ne nii du ma ne fi toll nii de waaye bi ñu dooree ba léegi ragal bi tiitaange gi ñu ngi koy seetee ci ñoom parce que nag olof dafa ne lu yëngu rek li ko yëngal la ko ëpp doole. man soxlaw ma xam Macky Sall lu muy def ak fu mu ne parce que intéressé wu ma waaye mun naa leen ne ku dem suñu meeting bi fi mu ne nii mi ngi toog di ko seetaan. waaye defe naa waxtaan bi ñi ko ubbi dafa mel ni dañoo santiroon fi ma bëggoon waxtaan ak ga tey maa ngi bëgg waxtaan ak ga Louga ci les valeurs li ñuy tuddee les valeur parce que ñii fi nekk mag ñi fi nekk parce que bu ñu jàpp ni comme ñoom màggatu politiciens yi lajj nañu wala lenn ci màggatu politiciens yi laaj nañu que ñépp ñi ne ci politique di mag dañoo laaj loolu amut Madieye Mbodj mi jël fi kàddu léegi nga xam ne depuis 40 ans mi ngi ci politique bi yàgg xeex ya nekk ci clandestinité ba nekk ci parti bu ñu reconnaître di xeex ba tey jii exemple la nii du ñu nekkoon ci politique ñépp ñoo laaj waaye li ëpp ci ñi fi newoon ci politique di mag gis nañ ni lajj nañu looloo ñu andi ci Sénégal fii ñu toll malgré yalla lim fi def yépp ci alal ak ci possibilité ñu am gàcce yu ñuy boole ci vingt cinq pays les plus pauvres du monde loolu musiba la ba tax nag jeunesse bii ma gis fii cette jeunesse décomplexée cette jeunesse saine ambitieuse. Cette jeunesse patriote, cette jeunesse ne peut plus accepter cette situation. ci et papa ak suñuy yaay yi nga nañu gis-gis encadré conseillé cette jeunesse a décidé de prendre son destin en main exemple Mortala nit dof li exemple am solo ñun on n'a pas le droit de faillir xam ngeen ndax lan buma ma exemple yu melni mom mi da fay fees sama xol parce que ñepp xam nañ ni limuy yëngatu ñaare engagement politique mën na ci yaq lu bari ñëpp xam nañ ko malgré lool je mu accepter jël risque parce que am Sénégal fi mu c'est l'appel de la patrie dama ne combat bobu jeunesse bi di ñenn ñi doon ko mëne jaarale ko ci aar li ci gën a fës di mouvement hip hop ñun ñi ñëpp ñoo bokk génération dama bëgg ñu xam ni même combat boobu lañu ñun ñii di mëne waaye opté ni nag dañ koy jaarale parce que aw ma talaam ku ma dugaloon studio mënuma cee wax ñetti baat waaye boor bi ma nekk juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi jangé ci réew mi ba yalla may ma ci astour ci xam-xam ma liggéeyee ci état di gis ni ñuy yaqé réew mi ma japp ni nak combat bobu ñom ñu doon mëne ci dénonciation nu nit war nañ ko mën mëne ci fiñu mëne moy mooy dugg ci engagement politique c'est le même combat réew nag dafa am fu muy tollu su patrie bi wootee xam nga en période de guerre dañuy réquisitionner tous les jeunes et même les moins jeunes ñi wara mëna yëkëti fétal dem xeex yi Sénégal fofu la tollu waye du guerre révolution pacifique lañu bëgg moy sénégalais yi nga xamné ne am nañu yëg-yëg bi yëpp te may na leen ñu féké tal am wér-gu-yaram kenn amatu ci droit tok naan damay sétane le terme apolitique n'existe pas personne n'est apolitique nit nak mun na né je suis non partisan bokkuma ben parti waaye je suis apolitique amul ndax la politique est consubstantielle à l'être humain ku fi jog dem marché ba suñu mbokk jigéen yi yóbbu francs delloo ci 500 francs jambat ne dëkk bi dafa cher ndugg mi cher na yaa politique parce que yaa ngi wax naka la société bi wara doxé lool rek moy politique Say la politique yi politiques, nous politique ba ñëpp koo fi Nous politique mu la wax sommes def molut, jël alalu politique Nous une génération mission pari la nous am bu ci réconcilier le peuple avec la politique bu ci changer structurellement l'État et so fonctionnement daadi di jaare foofu defar Sénégal teg ko ci yoon bu baax ba faw loolu nag il faut mu ànd ak jikko gis nga jikko ji dafa am solo munoon naa ñëw fii tari leen programme économique bu gudd munoon naa ñëw fii wax leen réforme institutionnelle yu gudd waaye loolu yépp boo ko defee te àndul ak jikko mbir mi du dem fenn jikko ji nag ñun dañoo wu diine ak diine bu ñu munti nekk fii dañoo wu diine waaye léeg di nga gis ñoo xam ne wuñu diine waaye Nous gën baax jikko nag su dee dañ ko ci politique kese ndax tubaab yi ñuy fa di nga gis ni ñoom ci jikko ñi ngi appliquer li suñu ñun liggéey bu jotee nga jox ko àqam rendez-vous nga respecté ko àqu jàmbur nga respecté ko li ñëpp bokk ñu bokk saytu ko loolu rek lañu diine sant nag suñu diine gi ñu gëm ñun loolu rek lañu sant ñun nag safaan wala ñu gis fii rawatina nag suñu acteur politique yi moo tax am na imam bu mag a mag a mag nekk Égypte yàlla def mu da def ay xutba yu méttee métti métti di attaqué tubaab yi benn at mu feebar ñu faj a faj a faj Égypte mënuñu koo faj ñu ne ko il faut nga dem Angleterre parce que ñoom ñoo la mën a faj lànk gaa yi naxanteeg moom gaa yi yennu yóbbu bi ñu demee mu faju ñetti weer ñëw wàcc aéroport journaliste yëpp ñëw taalal ko micro ne ko imaam loo gis mu ne leen bi ma demee de fekk naa fa ñoo xam ne duñu jullit waaye ñu yor jikko jullit ñu nag ñuy ay jullit yor jikko safaan wa loolu rek mooy différence suñu diggante ak ñoom bis bu ñu tegee réew mi ci jikko yu rafet léegi ñu defar réew mi ci diir bu gàtt jikko nag ci wàllu état suñuy wax valeur ci wàllu état mu ngi dellu lépp ci alalu réew mi naka lañ ko yoree yéen nag Louga dafa mel am ngeen ci as am ngeen ci sax ay de ndax li gën a li gën a tey ci ne ñoo leen di représenté amu ci kenn dina dajale lugatuwaay wax leen programme wax leen xam-xam te ku fi ñëw nee nañu ñi kii day distribuer ay billets d'argent keneen ki yéen a xam nu ngeen ko tuddee lenn dinaa leen ko wax su ngeen gisee ab fonctionnaire man de nekkoon naa fonctionnaire 15 ans. 15 ans du benn fan du benn at te yàlla xam ne ni fa ma newoon bu ma bëggoon lu nooy dong dong dong dong tey maa ngi tabax ay château waatal naa Sénégal man ni musuma jël fukki dërëm bu ma moomul bu amee yàlla na ma yàlla lakk coow li bëri na ci entreprise diabolisation bi coow bari na waaye du ngeen mës a dégg ni juge woon na Ousmane Sonko du mës am xam nga tuuma nag yomb na bu ma neexoon léegi romb ne gis naa la ci sëg muy déterrer ay ay néew dina am ñu ko gëm parce que Sénégal a demee noonu waaye suñu demee bay jiiñante jiiñ nit nag ci loo xam ne dafa jëm ci lu war a mën a dem ci kanamu juge yow nga yor nguur moom mu ne opposition ñu ne mooy sa opposant bu la gën a lakkal fi mu toll nii yàlla xam na ni bu ñu amoon lu toll ni tarfata ayn maa nga rëbës bu yàgg yàgg mu wax leen nag ni def naa 15 ans fonction publique fonctionnaire bu mun a ñëw fii Louga yor xaalis naan mu ngi koy distribuer ñuy wax ñu ne ab château la tabax boo demee ndakaaru ñu ne la tool ba rek mat na 2 milliards xam leen ni 94 milliards jaar na fi

gis nga li ñu waroon def programme la ñu war a def ñi ànd ak Macky yépp yëpp te moom mu leen di protéger te nag ku protéger sàcc ndax receleur nga ñi ànd ak moom ñëpp di def njombe yi dañu war a am benn plan boo xam ne kenn ku ne fa nga dëkk waa dëkk ba ñooy régler problème ba setal seen der ba mu set wicc

lay wax suñu defoon ba kenn ku nekk ci nguur dem def fa ñaawteef yi ñuy dégg nii boo duggee sa dëkk waa dëkk bu sax ki yor dëkk bi mi ngi lay protéger yow di nga am ba Sénégal say propre mbokk ñoo la njëkk a loolu na ci méthode yi ak corruption ci réew mi moo wax ni valeur dafa am solo cim réew senegal ñi ngànk réew mi li ñu nekkee ñaaw na ñaaw na su ngeen ci xamoon lépp yàlla xam na ni ku fi dugg ci ñoom ngeen ngeen daggati ko